falaa tuqaamu léeful taxawal aljumuhatu julli jumaa illaa fi mawdihin dara ci ab béréb yustawtanu bopp def na dëkke fii ci moom wa yakoonu te muy nekk maxallan di béréb li iqaamati ñeel sax nga xam ne yum kii dana jàpp ni almatwa sax ga fii ci moom kaana moo xam nekk na baladan di ab dëkk bu mag aw xariyatan wala muy ab dëkk bu ndaw ponk juróomeel bi mooy fa ñuy def jumaa ja tey doon ñoo xam ne ña fa nekk dañ faa fas yéenee dëkk di wéy nga xam ne yàlla mën naa def seenu tox waaye lañ jàpp moom mooy dëkk fa di wéy lu mel ni pël yi nga xam ne ñu faral di màngaan buñ dajewoon ci benn béréb ba bari fa itam du tax ñu mën faa def jumaa ndax ndegam fës ñu fa yéene dëkk di wéy dañoo gis foofa rek ñax ak ndox mën faa sàmm bu fa loolu jógee ñu tox dem feneen ñu mel noonu duñ saña tabax jumaa faaw rek béréb ba dañ fay fas yéene dëkk nga xam ne yàlla mën naa am nag ñu dem ba yàgg ñu toxu ci coobare yàlla waaye lay nar moom mooy dëkk fa di wéy loolay tax ñu saña tabax jumaa su mbooloo mu baree nag kon moo xam dëkk bu mag la moo xam dëkk bu ndaw la waaye doy nañ ci seen bopp lu ñu def mën caa taxawu seen bopp kon jumaa war na leen jumaa ji ni nga ko waxee woon amulub coona ndax bu jumaa ji yéesut seen néegi dëkkuwaay rek dal nay baax la ñuy bañ rek mooy jumaa ji yées seen néegi dëkkuwaay ñoom nit ñaa wa amma aadaabul jumuhati ndaal teggi ni jumaa fa samaaniyatun juróom-ñett la al awalu bu njëkk bi alxuslu mooy cangaay la laxaa ñeel ko waxuma te moom sunnatun sunna la xindal jumhóori fa mbooloo ma julli jumaa am na juróom-ñetti teggiin boobu ci njëkk tudd nag mooy sangu bala ngaa julli ji li ñuy sangoo farata rek la ñuy sangoo ñoo bokk melo yi moom nag sunna la moom ca ngaay loolu li ëpp ci mbooloo mi daal loolu la ñu wax ni sunna la te say boo jàpp loolu daa am ñu ko bëgg waral nag waaye wax ji gën a wóor mooy sunna la wa min shurutihi bokk na ci ay sartam añ yakkoona mu nekk muttasilan di aju jokk bi rawaaxi ca gont ga mooy rek ca dem ca jumaa ja fa inir tasala ndéem sangu na wastaxala te mu soxlawoo bi xadaa in ci añ dafa wax añ rek waaye lekk rek la ci jublu aw naw min wala nelaw ahaada mu baamu alxus la cangaay la xalal mashhuri ca la ñu siiwee cangaayul ajjuma nag bu ñu nee sunna la boo ko defee lay tax mu sax ak yow du aajowoo defaat mooy nga dem fa saasa boo yàggee ci yoon yi moom baax na waaye nag boo sangoo moom na nga daal di jóg wuti jumaa ja fa saasa waaye boo sangoo ba noppi tëdd nelaw mbaa nga toog lekk rek dal ngay ñàkk cangaay la faaw rek nga sanguwaat beneen cangaay door a am sunna si attaani ñaareel bi assiwaaku moo di soccu soccu dañ koo taamaloo ci mboolem julli yëpp yëpp rawante na nag julli jumaa da gën ci soccu nag mooy bala ngaa tàmbalee jàpp ngay soccoo bant mbaa leneen lu ñagas galax ni ko tóor door a jàpp nag attaalisu ñetteel bi xalqu shahari mooy wat kawar ga taamu nañ bisu ajjuma nga wat gépp kawar goo xam ne tàggoog moom moo gën ni ki kawaruk naq araabiru ñeenteel bi taqlimul azafiri mooy lewi weya tegginu ñeenteel bi mooy nga lewi say we bis ajuma bu ne taamu nañ nga lewi say we ndegam lu ñu lewi nekk na ca alxaamisu juróomeel bi tajan nubu maa moo di teet lépp loo xam ne maanaam moytu lépp loo xam ne yetta walla du dana juddoo min hu ci moom arraihatu xet ga alkarihatu ga di guñ sib juróomeel bi mooy ngay moytu lépp lu am xet gu naqari ni ki lekk laaj mbaa soble te ñurut rawante na tux lépp luy indi xet gu naqari rek nga moytu ko bokk na ci ngànt yi sax mu amee xet gu naqari goo xam ne bu ko yóbboo ci jumaa ja lor ñëwu yàlla baag waa jumaa ja su boobaa day toog kon bañ a julli ji lu may nag moo def loola ngir bañ a julli ji su boobaa dañ koy forcé ne ko defal lu dindi xet gu naqar yi te dem julli ji ndegam yow yaa ko tey def xel gu naqar gi ndax bañ a julli ji dong assaadisu ak juróom benneel ji at tajammulu mooy rafetoo maanaam waaje bi siyaa bi ci yére ya alxasanat yéen aji rafet juróom benneel teggi ni mooy nga waaj sol yére yu rafet yére yu rafet nag bu dee ci julli jumaa mooy rek yu gën a weex donte daa màggatit jumaa moom weex lañ ci gën a taamu waxoon nañ na léegi nag colu islaam gi nga xam ne moom la ñu gën a taamu sarte na mu demee waxoon nañ ko léegi ngay dégg asaabihu juróom ñaareel bi at tatayibu mooy gëttu laxaa ñeel julli jumaa gi maanaam teggeem juróom ñaareel bi mooy nga xeeñoo xet gu neex xeeñoo xet gu neex dañ koo sopp saa yu nekk waaye nag jumaa lañ koy gën a sopp asaaminu juróom-ñetteel bi almashi mooy dox laxaa jëm ca julli jumaa ga duuna rukkoo bi ci lu dul war illaa li xudrin ndare ngir ngànt yam na axooloo dana ko tere min zalika ci loolee juróom-ñetteel bi mooy dañoo bëgg booy dem jumaa ja nga dox ak sa tànk te bañ a war lu may na nga am ngànt boo amee ngànt moom mën ngaa war waaye boo amul ngànt daal dox lañ ci gën a taamu wa amal ahdaru ndaal ngante ya al mubihati aji daganal lit taxallufi ñeel ruusaanu maanaam ñeel bañ a dem xan xaa walis julli jumaa ga fa min zalika bokk na ci loolee al mataru taw ba ashadiru bay aji tar war waxalu ak ban ba al kathiru bay aji bari wal mujazzamu ak kañu ngaanaal allësi ka nga xam ne tadurru dana lor raihatuhu xetam nga bil jamaahati ca mbooloo ma wal maradu ak tawat wat tamriidu ak toppatoo ku tawat tamriid moom la ñuy wax toppatoo jarak wala sax dëgg da koy wax ragal ku tawat ragal ku tawat mooy toppatoo ku tawat bi an yekkoona ci bu nekkee xindahoo fa moom ahadun kenn min ahlihi ci ñoñam maridan di aji tawat ka sawjati ni ki soxna wal wala di ak doom wa ahadil abawayni ak kenn ci yaari waajur ya walay saxindahoo te jër muy nekk fa moom man koo xam ne yaamalo luhoo dana ko toppatoo fa yaxtaaju te muy aajowoo ila taxallu fi jëm ci bañ a dem ñu koy wax ruusaanu di tamridihi ngir ak ragalam fekk nag ragal jarak maanaam rek mooy toppatoo ku tawat man nga ne li tamridihi ngir ak toppatoom day tàmbalee wax ngant yi nga xam ne mooy tax jumaa ji wàcc la ba mu ci jëkk wax mooy su dee taw taw boo xam ne xaw naa bari ba boo muuruwul rek faaw nga tooy kon mën ngaa toog ba tey bu fekkee fi ngay aw dem ci jumaa ja day ban bu yees boo xam ne boo dëggee say daal rek muy summiku ba tey kon mën ngaa toog ku gaana it koo xam ne xetu ngaana ga dafa naqari ba tey bu demee ci biir jumaa ja dana ca lor mbokki jullit yi kooku na toog bu mu dem ba tey bu fekkee dafa tawat tawat joo xam ne mënta dem jumaa ja mbaa boog bu demee dana sonn lool coono bu jaaduwut kon mën naa toog ba tey bu fekkee ne soxnaam wala doomam mbaa ndeyam ak baayam ñooñu da ci am ku tawat te moom rek moo fa mën a nekk toppatoo ko ca tawat ja kon am na ngànt na toog kon toppatoo ko tawat te bañ a dem ci jumaa ja wa min zalika bokk na ci loolee isax tudira ndéem sukuraata leef na ahadun kenn min aqaaribihi ci ay jegeñaaleem aw ixwaanihi wala ay mbokkam xaala wax na malikun malik fi rajuli ci waaja yaxliku dafa faatu yowmal jumuhati ci bisu ajjuma fayataxallafu tey des gannaaw xindahoo fa moom rajulul waay min ixwaanihi ci ay mbokkam yanzuru di seet fii si anihi ci mbiram mu ne laa ba asa deetu ay bisalika ci loolee ba tey bu fekkee ne kenn ci ay mbokkam kenn ci jegeñaaleem dafa tollu ci di sukkuraat di waaja wuy ci boromam kon mën na faa toog toppatoo ko bañ a dem ci jumaa ja ba tey sax bu faatoo ba noppi moom mbokkam moomee tam bëgg a seet ba xam nuñ koy waajale kon mën naa toog nekk ca waajtaay wa bañ a dem ca jumaa ja moo tax muy Malik nee na nit bu faatoo ci bisu àjjuma kenn ci mbokkam toog fa di seet ba xam nuñ koy waajale ñàkkaa dem ci jumaa ja du wàññi dara loola dara nekku ca wa minha bokk na ci ngant yi law xaafa doonte ragaloon na xalaa nafsihi ci bakkanam min darbi zalimin ci dóorug aji tooñ aw xabsihi wala ak tëjam kaso wa axdi maalihi ak jël alalam wa kadhalika naka noonee la al moosiru aji ñàkk ja yaxaafu dana ragal an yaxbisahoo mu tëj ko kaso xarimuhoo aji fayoom ja xalal asax yi ci wax ja gën a wér balaa dem jumaa war nga wóolu sa bakkan wóolu sa alal boo ragalee ne booy dem ci jumaa ja am na tooñkat boo xam ne mën na laa gaañ ci sa bakkan muy sa yaram wala ci sa alal mbaa boog mu tëj la kaso ci kaw tooñ doom defoo ko dara kon am nga ngànt mën ngaa toog koo xam ne it daa ñàkk te fekk mu amee bor yu war a fay waaye nag day koo xam ne boo ko dee seen day mel ne mën naa fay ba noppi fayut ku mel ne kooku bu xamee ci bopp ni moom mii day ca dëgg-dëgg mënta fay te bu demee jullit jumaa daañu ko jàpp tëj ko ba gëstu ba xam daa mën a fay te fayut wala déet te xam ne ci bopp ne moom ca dëgg-dëgg mënta fay kon kooku mën naa toog bañ a jullit jumaa ndax ragal ñu koy tëj ci loo xam ne du ca mën dara bu doon nag ku dëng koo xam ne amee nay bor te itam mën naa fay kooku faawu daa war rek jullit jumaa bu ñu ko jàppee tëj ko ngir ñàkk gaa fay itam moo ko def ndax moom wóor na ko ci boppam ne mën naa fay wa min dalika bokk na ci loolee al ahma gumba ga allësi ga nga xam ne laa qaida dit aji wa mat laxoo di ko ñeel amma law kaana ndaal doonte nekkoon na laxoo di ko ñeel qaidun aji wa mat aw kaana wala mu nekk mi man di koo xam ne yahtadi dana mën a gindikul boppam lil jaami ba ci jumaa ja bila qaidin ci lu jan aji wa mat fala yejoosu kon du dagan laxoo ñeel ko at taxallufu des gannaaw muy bañ a dem rek xan xaa walis julli jumaa ga gumba bu fekkee ne mënta demal boppam ci jumaa ja te amul tam ku ko ca yóbbu kon am na ngant na toog jumaa ja wàcc na ko waaye nag bu amee ku ko ci yóbbu mbaa moom ci boppam mën naa demal boppam kon jumaa ja war na ko wa yaxrumu dana araam asafaru tukki xinda zawali fa rëccu jant min yowmil jumaati ci bisub ajjuma ba xalaaman ca ka nga xam ne tëj bu dana war xale yi ci moom aljumahatu julli jumaa ga bisu ajjuma bi nag bu fekkee ne julli jumaa war na la te xaar nga ba tisbaar jot kon doo sañ a génn tukki bàyyi fi julli jumaa gi faaw nga xaar ba julli jumaa door a dem loolu nag mu wër la ne da nga àgg ci dëkk boo xam ne da nga ca jullee jumaa jumaa du la ca raw waga saalika naka noonu yaxrumu dana araam xale ci moom alkalaamu wax wan naafilatu ak naafila wal imaamu te fekk ilimaan ba yaxtu bu dana xutba suwaaw woo yemoo la kaana moo xam nekk na fil xutbat ci xutba ba al ula bu jëkk aw taaniyati wala bu ñaareel ba wa yajlisu dana toog ar rajulu waaja wala yusalli te du julli illa an yakoona dara bu dafa nekkoon talabbasa di làmboo maanaam di tàmbali bi nafilin ci naafila qabla bu xool imaami ci njëkk tàbbi ilimaan ba fa yutimma tamit mottali daalika loolee dafa wax ne bu ilimaan dee xutba moom day araam ngay wax jenn wax mbaa ngay fette su kenn mbaa nga di ko sànni aw doj mbaa lu ko nuru da ngay def patt rek déglu xutba bi doonte sori woon nga ba doo mën a dégg xutba bi it doo sañ a wax doo sañ a def lu ko nuru mu ne itam nga moytu ilimaan di xutba ngay tàmbalik naafila moo xam daa nekk ci xutba bu jëkk moo xam daa nekk xutba bu ñaareel bu dee ci yoonu Maalik moom i jàpp ne déglu xutba bi farata la kon nag doo soxla woog naafila bay bàyyi farata yooyu jamono ñoom dañuy araamal naafila am na nag ñu ko daganal waaye ci waa Maalik moom fekkee ñoom ngay topp daal bu ilimaan xasee toog ci minbar bi waaye tàmbaligul xutba dañuy sib nga sos fag naafila bu xasee tàmb bu xasee tàmbalee xutba nag moom naafila ga day araam teewul nag bu fekkee da ngaa tàmbaloon naafila laata ilimaan di toog ci minbar bi ak laata muy xutba kon da ngay gaaw rek àggale ko bul ko dagg doonte sax bala nga caa noppi ilimaan tàmbalee xutba it du tee àggale ko ndegam naka jëkk yow tàmbali woon nga naafila gi ba yaxrum dana araam albayxu jaay wa shiraab ak jënd xindal azaani fa nodd ga azaani ga ñaareel bu ilimaan ñëwee ba ñu nodd nodduk ñaareel gi kon xamal ne jaay ak jënd ak lu mel ne ñoom ñaar day daal di araam wa yuf saxu te def na ko firi in waqaxa ndeem tàbbi na mooy ndem xew na jamono yi ilimaan akse bañ nodd noddu ñaareel buñ ne araam na fa jaay mbaa jënd ku fa jaayante rek ñu dindi jaayante ga dañ koy tebbi delloo njaay ma boroom delloo njëgg boroom wayu ko dafa def na sit tarkul xamali bàyyi liggéey yowmal jumuhati ci bisub àjjuma bisub àjjuma nga bañ caa liggéey ngir wax ne damay màggal ajuma ji moo tax loolu lañu sib waaye bu fekkee danga xam ne liggéey moom nopplu mënu caa ñàkk nga far def nag ajuma muy sa bisub nopplu mbaa boog muy bis booy teel a wàcc ndax mën a waajal jumaa ji ak man cee baril say jaamu yàlla kon loolu lu ñu soppa sopp la wa tanafulul imaami ak naafil ak ilimaan ba xablal xutubati njëkk xutba ba ba tey ilimaan bu ñëwee te fekk waxtu wi jot na mbooloo mi itam teew na sib nañu mu jekki fay naafila dañoo bëgg rek mu daldi jawali xutba bi bu teelee ñëw nag mbaa nga xam ne daa ñëw te fekk mbooloo mi ñëw ko mu leen di xaar kon moom na naafila waa gasaalika naka noonee yukk dafu def na sib lil jaalis ñel aji toog añ yetta nafala mu naafila hindal azaani fa nodd ga al awali gi aji jëkk ba tey koo xam ne ñëwoon nga ba toog fekk nodd gu ñu nodd gu njëkk gi naka nga dégg rek nodd gu njëkk gi dal jóg di naafila mel ne kon nodd nga doon xaar ca naafila ga loolu sip nañ ko bu dee koo xam ne day ko ñu roy ci moom nga xam ne lu mu def ñu defe ne aw defin la de sax nañ bu fekkee ka ko def du ko ñu roy ci moom moom du ko ñuy jaakaare xam-xam dee su ko sib te it boo ko jaawaleeg ba nga ñëwee jumaa ji daa fekk tisbaar jotagutoon nga daldi nuyu jàkka ji toog di xaar kooku moom bu waxtoo jotee moo xam nodd nañu moo xam nodduñu na nga jóg dawal li ngay dawalal tisbaar ndax gannaaw bu wax tisbaar jotee lañ koy door a dawalal te yow da ngaa ñëwoon njëkk waxtu tisbaar du jot boobu ko dafa def na si xubooru shaabati te rek waxambaane bu jigéen lil jumaati ñeel julli jumaa ga wa kasaalika naka noonee asafaru tukki ba baadul fajri ci gannaaw fenku fajar ga wallahu yàlla alamu moo xam dëgg-dëgg ndaw lu jigéen loo xam ne dafa am taar waaj ba nga xamee ne ragal na ni góor ñi danañ ci amee fitna kooku day araam moom mu ñëw ca jumaa ja bu dee ndaw lu jigéen loo xam ne nag ragaluñu góor ñi am ci moom fitna nag dañ koy sib rekk yem ci bu dee màggat mu jigéen moo xam ne góor ñi duñu ko geesooti moom mën naa teew ca jumaa ja am na sax ñu ne dañoo sopp teewam ba tey bu dee koo xam ne jullit jumaa war na ko gannaaw bu fajar fenkee ci bisub jumaa ji taamootuñu mu génn tukki bàyyi fi jumaa ji teewul nag sib rek lay doon bu demee itam du wàññi dara ci guddi gën ak moom nga xam ne fajar fenkagut moom mën naa tukki te kenn du ko sib waaye daal ndegam jumaa war na ko te fajar xas na fenk su ko mënee mu toog ba julli jumaa door a dem moo gën mu des nag nañ ko waxe woon ci gannaaw julli jumaa war na ko te it tisbaar xas na jot nga xam ne julli jumaa gi jot na araam na muy génn dem di tukki te xaarul ba julli julli jumaa gi lu may nag mu war ko ne ci yoon wi dana fi am jumaa jum jullee mbaa boog daa am ay àndandoo yoo xam ne su ko xësee raw rek dana metti ci moom wala boog tey ci misaal suñ jamono ji muy dem ci avion boo xam ne bu ko xësee raw rek dana metti ci moom kon daañu ko may mu dem bàyyi jumaa ji baabu salaatil janaasati li muy buntub jullik tàdd julleek tàdd mooy julleek néew wa salaatul janaasati julleek tàdd fardun faratala alal kifaayati ci kifaaya ab jullit bu génnee àdduna sang ga ak sang ga ak jullee ga ak suul ga suul ga itam yooyu yëpp lu ci nekk fardu kifaaya la bu ca ñenn taxawee rekk dal nay doy waaye bu ko ñëpp bokkee seetaan ñu bañ koo defal loola ñëpp bokk rekk am bàkkaar wa arkaanuha ay ponkam arbaxatun ñeent la an niyatu mooy yéene wa arbaxu takbiraatin ak ñeenti kabar wa duxaaw ak ñaan baynaxun na ci seen diggante wasalaamu ak sëlmal ba julleeg néew am na ñeenti farata bi ci njëkk mooy yéene da yéene jullee jëmm jooje nga xam ne moo di néew ba bu dee ke bu dee kennoo bu dee mbooloo ñaarul mooy kabar yi muy kabar ba muy ñeent ñeenti kabar yooyu boo leen boolee farata lañu ak ñaan ga muy ñaan ci diggante kabar bu ne moroom ma ñaan googu farata la muy ñett ak wax ga asalaamaaleykum soo ci boolee taxawaay ba nag kon muy juróom fekkee boole wokk ci nag kon muy ñeenti farata ni mu waxee waaye doxa dana ñaan bi maa ci la nga xam ne teye sara jàppandi na wastaxsana rafetlu na ibnu abi saydin ibnu abi sayd fii risaalatihi ca téere ba mu tudde risaala añ yàqoo la ci mu wax lii ñaan nga ngay ñaan boo julee ab néew moom amul genn ñaan guñ dogu ne moom rek ngay wax mu door a doy moom ñaan goo ñaan rek mu doy ñaan nga farata la waaye loo ñaan rek mu baax mun nag booy jàng risaala am na ñaan gu borom risaala indi fa wax ne moom la taamu waaye daa xaw a gudd nag bariwut ñu koy jàng teew nag lam njëkk andi moom dañ ko xaw a jàppe faatiha jullee néew nga xam ne man nga ñaan goo mën a wax jiital li ba noppi mel ne mooy faatiha ji nga door caa teg ñaan googa mooy alhamdu xeeti cant yépp lillaahi aj yey la ñeel yàlla àll si yàlla mi nga xam ne amaata rey na wa ahyaa te mu dundal tàmbalee sant yàlla mi nga xam ne moo fi jële ka ko soob bàyyi fi ña ca des ñu dundandi ba moom leen di soxla walhamdu xeeti cant yi lillaahi ñeel na yàlla allësi yàlla mi nga xam ne yux yi dana dekkal almawta way faatu ya kon ñaan gaa tàmbalee sant yàlla mi nga xam ne mooy dundal mooy rey te itam mooy dekkalaat bu ëllëgee laxoo ñeel na ko al azamatu màgg ga wal kibriyaawu ak rëy ga mooy màgg ga ba tey wal mulku ak nguur ga wala xudrat ak kàttan ga wa sanaaw ak yëkkatiku ga boo ko defee sintu wow boo ko defee nag wa sanaaw ak tagg wa mooy bu dee tombañ waxwate moom yàlla xadiru may aji àttan xalaa kulli shay'in ci mépp mbir yàlla moom rek a màgg moom rek mooy borom nguur gi moom rek moo sañ moom rek moo kawe moo yeyoo tagg te sax moo mën tagg boppam tagg ba mu yelloo ab jaam lot na ci tagg ko na mu yelloo allahumma yow buur bi salli yàlla na nga dool tedd nga ala muhammadin ci muhammad wa ala ali muhammadin ak ñooñ muhammad wa barik yàlla na nga dooli barke ala muhammadin ci muhammad wa ala ali muhammadin ak ñooñ muhammad kama sallayta na nga terale woon wa rahimta ak na nga yërëme woon wa barakta ak na nga barkeele woon ala ibrahima ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ñooñ ibrahim fil xaalamina ci mbindeef yi innaka naka yow xamidun ku ñu sant nga majidun te aji tedd nga di tàmbalee kon alhamdulillahi la si amaata wa ahya ba ci innaka hamid majidun man nga ñaan go mën jàng rek njëkk jàng lii def ko mel ne fatiha ci juleeg néew waaye nag ba tey loolu di ab sart bu la neexee jekki-jekki jàng ñaan nga ngay jàng bu la neexee itam wax leneen lu bokk tëg lii nga tekki nag boo toppee borom risaala ak ni ko kii indee fii allahumma yow buur bi innahu naka jëmm ji xabduka sa jàmbu góor la wa bunu xabdika tey doomi sa jàmbu góor wa bunu amatika tey doomi sa jébéer mooy sa jàmbu jigéen anta yow xalaqtaxoo bindoon nga ko wa rasaqtaxoo te nga wërsëgal ko wa anta te yow amattaxoo rey nga ko wa anta te yow tuxi da nga ko dekkal wa anta te yow aalamu yàgg na xam bi sirrihi ci lu nëbboom wa xalaaniyatihi ak lu feeñam ji naaka dikkal nañ la rek sufaha mbir mu nuy way tinu mbir mu nuy way tinu lëxoo ñeel ko pacha fix naa yàlla na nga nangu sunum tinu fii ci moom suñu borom jëmm ji day sa jaam bu góor a sa ñaari jaamu ko jur kon bokkoo ko kenn yaa ko sàkk ba mu doonul dara andi ko ci àdduna di ko wërsëgal ba mu soob la tey jii nga rey ko teyit yaa koy dekkal yow nag yaa xam biram ak biteem danoo ñëw nag di la ñaan ndax nga tin ko rek kon nag yàlla nga ko tin ci sa mbaax ak ci sa ngëneel allahumma yow buur bi inna naka nun nastajiiru dananu sàkku ak musal la ñeel ko bi xabli jiwaalika ci sa buumu kóllëre innaka naka yow du wafaayin boroom matal walëre nga wa dimmatin ak walëre dañuy ñaan nga musal ko aar ko genn mbugal bañ koo jege li nga dikk kala gëm ci njëgal ak yërmande te sa yonante jotli ko way gëm ñi yàlla nga ko defal sa jaam bii kon nag ci kaw koloré googu dan lay ñaane nga musal ko dara ci mbugal bañ koo jege allahuma yow buur bi xihi yàlla nanga ko fegal min fitnatul xabri ci fitnay bàmmeel wa min xasaabi jahannama ak ci mbugalum jahannam allahumma yow buur bi ixfir yàlla nga jéggal la wàññeel ko warxam ko te nga yërëm ko waafu te nga jéggal xan walis ko waxaafi te nga jàmmal ko wa akrim te nga teral nuusu lahoo ak berndeelam wa wasi te nga yaatal madd xalahoo ab tàbbikaayam wax si lu fa te nga sang ko binaa in ci ndox wa taljin ak galaas wa baritin ak tawu yuur wa naqihi te nga setal ko mina dunoo bi ci ay bakkaar wal xataaya ak ñaawteef kamaa yu naqaa ni ki dee fi setale ab taw bu ma laan ma al abyadu may aji weex mina danas cib tir wa abdilhu yàlla nanga ko wecceele daaran kër xayran gu gën min daarihi ci këram nga woon wa ahlan ak ñooñ xayran ñu gën min ahlihi ci ñooñam wa sawjan ak soxna xayran su gën min saw jixee ci soxnaam sunu boroom sa jaam bii de yàlla na nga ko jéggal te yërëm ko te baal ko te jàmmal ko yàlla na nga ko ganale ganale gu sedd xolam yaatalal ko bàmmeelam lim ci teg nag ci sange kook ndox ak galaas ak taw bu yoro moog lam ca tekaat ci setal ko ci bakkaar ak ñaawteef ni ñu setalee mbalaan mu weex ñoo bokk maanaa mooy dañ ñaan rek yàlla jéggal ko bakkaaram yépp yépp mu set ca wecc wecc mel ne ku mësta jaar ci bakkaar te yàlla yàlla na nga ko defal këru àllaaxira gu ko fàtteloo këram nga woon defal ko ñoon ñu ko wettali ba mu fàtte ñam amoon rawante na soxna ay soxna yu gën soxna yamu amoon allahumma yow buur bi in kaana ndem nekkoon na muhsinan di aji rafetal fasid yàlla na nga dolli fi ihsaanihi ci rafetalam nga wa in kaana ndem nekkoon na musi andi aji ñaawal fa tajaawas yàlla na nga jégal xan say aati walis ay ñaawteefam allahumma yow buur bi innahu naka moom xaddina sa la wàcc na gan bi ko ci yow bu ànta